bari la mbir bu njëkk bi mom motion de soutien au chef de l'État parce que yéen xam ngeen ne président Macky Sall 2012 ak légui 2020 8 ans la 8 ci il ans yi lim ci liggéey kenn mënu ko Nous ñu jël d'abord ci pandémie pandémie de bi actuellement man lay wax né pratiquement feebar bi mi ngi dem

exactement Sénégal que deuxième position ci Afrique que troisième du monde qui maîtrisait la Covid Lolo, lu félicité président la qui soutient soutien yi la nous aussi depuis président mi ak pays des nga ne nii ci bi forage aussi frontière

ak xale yu góor yi ak mag ñi financement yi gis ngeen ko bu ngeen ñëw aussi dialogue social bi président gagné amoon na droit ba a def dialogue mais def na dialogue wa opposition significative bi gis ngeen ko formé na gouvernement dugal na ci opposition bi woo na Idrissa jox na ko conseil économique social environnemental loolu aussi ñu ko ci félicité bu baax gis nañ aussi président ni muy jàppale këri diine a ak këri aada yi loolu aussi vraiment ñu ngi ko ci sant que baax di ko ci gërëm gis nañ aussi président ni mu fonkee der bu ñuul ni mu Afrique n'est-ce pas mi ngi toujours pour Afrique am ay représentants conseil de sécurité ci Nations Unies ci bépp foo xamante ne ñu fay waxal Afrique président mi ngi ci taxaw muy banque yu mag muy banque banque muy muy banque mondiale muy FMI et cetera et cetera donc coordination bi ci boppam élargie mom moy féliciter le chef de l'État le président Macky Sall aussi mi ngi koy renouveler confiance am bu amul ab coordination bi aussi. nee na ñu ngi mobilisé wu derrière le coordonnateur pour ñu gën a mën a taxawal le président Macky Sall ñun ñaar lañu gëm ginnaaw bi ñu gëmee bi ñu ba pare le président Macky Sall mi nga xamante ni ñu jàppale ci suñu département suñu région kenn ku dul bi ak département bi wax naa la ko ñu dëkk bi lañu gëm développement Tamba lañu gëm. développement département Tamba lañ gëm gëmuñu ay nit.